xol soo toppee xol. waaw xol noonu borom la soo toppee xol di nga def loo xam ne waruloo ko def wante technical yi. ah technocrate yoo xam nga ne. three years lañ sign. three years yi mu ngi jeex 31 décembre naka la ñoo wokkaaw ñu ne bokk ci coalition bi. Hmm? technically professionally ah. professional analysis naka la ñoo wax ne mënuñ cee bokka dañ cee bokka because they signed by three years su ñoo wokkaaw dañ war a wokkaaw at the end of 31st December ñu ne waa bokkatuñ bokkatuñ wante benn technically they part of the coalition ba pare nag ma wax la ne gis nga eh, like eh, Mai Fatty honorable Mai Fatty eh, nit yi dañ daan ñëw meeting ñun ñoo daa wax affaire naka la ñoo def ba ñu extend mandatam bi yëpp wax nañ ko dañ d'accord Eh, ñetti ñaari meetings ñetti meetings yu mujjee gi moom la ñu wante they were on it ba pare my fat is on the platform fi ñu dee yónnee communication ak yooyu ah, yëpp de ba waxtaan ak may faati for one hour maa ngi wax ne dañ war a try ñu ñëwaat ci coalition bi ñu bokk ci coalition bi coalition bi three years lañ wax three years bi jotagul ñu toog ñu continuer ba pare ñu seet réew mi ñu jàppante ñu waxal nit ñi pour ñu may ñu bi jot euh, euh, li fi ñu mën a passé bi ñu five years ñu liggéey réew mi te réew mi nag tax bu ñu seet dara lu dul réew mi. With all due respect, I'm not going to bandy words with anti-fact Antifatma Tamajang. It's very clear. I want her to prove evidence that she did communicate it to me, and I was involved in the picture she adopted an exclusionary tactic by preventing us, my representatives, to the coalition discussions are here. It's Alhaji Sidibe and Tida Kijera. These are my representatives. None of them, none of them had ever received a phone call from Madam Tambajang about any of the meetings. And she called me last night. Last night she called me. She got me on the phone. We were on the phone for about 15 to 20 minutes. She got me on the phone because she called me. And I accepted that and I answered her call. If she had called me earlier on, just like she did last night, it would have been brought to my attention. But I am not a member of the coalition discussion team because I have representatives. And it's those representatives who should brief me about what is happening there. If they have not been invited, how would I get the invitation? Madam Tambajan knows my office. She knows the GMC political bureau, the secretariat on Caraba Avenue. It's well known. I want her to produce a single letter that was sent to GMC informing us about the meetings. One single letter that was delivered from her to my office. One. I put her on the challenge to produce it. I can tell you, till the cows come home, she will never be able to produce it because it never happened. And so, and I told her this last night. And she said, well, I use WhatsApp I told her, Madam, you are the, the former vice president of this country. Coalition is the bedrock of this government. Do you run a government on WhatsApp? You are saying you're sending WhatsApp messages, an important matter like this? Do you run coalition affairs on WhatsApp? That is for my kids, my teenage kids and others who run their stuff on that. Or oh, political parties that the people can talk and express their views. A serious matter of a coalition of extending the mandate of a president. What's up? I was disappointed, and I told her yesterday, last night on the phone. Then, madam, I'm disappointed you telling me that WhatsApp is your means of communicating, you know, coalition matters. I have not heard anything. Tida mi binda let eh, binda binda bin wane eh, binda sen statement bi tiida kijera is part of the mu won ci meeting bi contribute effectively moom moo mit. tamit eh, Sidibé ñoom ñoo ko daan ñoom ñoo ko daan uh, représenté WhatsApp groupe bi suñoo convene meetings ci lañ faa def si lañ ko def ci WhatsApp bi te loolu modern modern technology la dafa faciliter lifin bi communication ba pare is uh, user friendly is economy I mean environmental friendly printing out documents every minute every minute lulu is not uh, environmental friendly te dañ leen dee binda is written ñoom Tida ñoo ko représente ak bi te moom ñoo ko waxee affaire WhatsApp bi mu ne eh, ñoom ñu ngi amee adresse eh, Kayraba nañ dee yónnee seen li fi ñu Kayraba seen seen headquarters bi ma ne ko ok li nga xam ne lu ñu war a bind la dinañ leen ko yónnee wante loo xam ne about meeting ak yooyu moom ci WhatsApp bi lañ nekk mu ne moom is receiving about thousand la moom ma ñaata WhatsApp messages te yenn dafa daf leen a delete eh, mistakenly ma ne ko loolu it shows sa level of commitment so amee commitment to the coalition every time da nga war a ñëw ci page bi nga seet la na fa nekk nga update sa boppa man ko léegi jox ma sa numbers of sa representatives su ko defee ñu ñu leen ci foofu ñoom su mi meeting amee yow soo ko seetu ñoom dinañ ko seet ñu mën a ñëw loolu excuse rek la excuse rek la. laaj nga lu wax naa la am na yoo xam ne yu am fulla yi ban maa ngi administration ñaata yees. Man Hamnal Man, Tamit, As a technocrat, Hamnane Begu decisions should be written in hardcover, hard copies and distributed. The Lulu didn't go there. There. What a Lila meeting, Amna meeting Ele, agenda be Lila. Lulu Yarud, you been the letter? So you been the letter. te moom bi mu waxee loolu ma ko ok man, ne ko yow jël nga bu njëkk bi ñu daan ñëw because of ci WhatsApp bi lañ ko daan def bi mu décidé ne buggatut Euh, duñu bokk ci euh, ci language wante may man it's difficult pour ma understand ko wante ñu dem ba ci kanam xëy suñu demee ba ci kanam dinañ xam euh, lan lan ban décision la bu ko def. political lan lan moo tax mu difficult pour nga understand ko why is it difficult to understand. my yeah yeah because mu ngi léegi léegi. he response nit ñi dañ dee nit tamit dañ dee ñëw meeting moom ci boppam daf di response sax ci WhatsApp bi. just recently mu doon correspond ak yenn uh, a few people stakeholders on on the on the WhatsApp so it's like mom it's it's it's his way or no no way I ate loolu soo bokkee ci mbootaay du noonu dangaa nekk a constant in your decisions in your commitment waaw soo waxee ne fii nga bokka fii nga bokka soo bokkul bokkuloo wante doo ne yaa ngi fii Samba Akude yaa ngi fii yaa ngi fale loolu mom what warul am ci nit seer na te it weer bu dee nit taxaw la tàllal la loxo ah dama ne askan bi jox leen ma seen noppa ndaxte Kayra Shoe Properties ñoom ñoo ñëw nag